lamto e lamboto e wa rahmatullahi wa mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci kër sëñ Cheikh Fall Mbaor ci ndog yi nga xam ne daf koy amal ci weeru koor wi ren ñu ñëwaat fi nag ngir fas yéene àndaat ak moom ginnaaw bu nu àndee moom nag tey ji dañ fee fekk ki nga xam ne moo di kenn ci njabootam mu di soxna Faama Ndiaye Baye Fall muy def bis boo xamante nii daf koy amal at mu nekk di ci sant sëñ sa Fall Mbawor sëriñam euh, mu war a tolloo fukki fan ak juróom at mu nekk ci weeru koor soxna Faama ñu ngi lay nuyu di la siyaare ci koor maa ngi sant bu baax di sant itam sama yaakaar tey ak ëllëg di sama wéeruwaay di sama lépp di sama yaakaar tey ak di sëriñ Cheikh Fall Mbawor sëriñ Cheikh Fall bu may tëdd dama koy sant. bu may toog dama koy sant bu ma yeewoo dama koy sant cant gi nag ma di ko sant ba sama cant ma loru ci man kese mënuma ko looloo waral ma di ko biral bëgg murit yëpp sant la ma ko Baay Faal yëpp sant la ma ko taalib yëpp sant la ma ko ndax man sëriñ Cheikh Fall Mbawar mooy sama lépp bañ naa ko sama dund aw ma xarit aw ma àndandoo fu ma fanaan tey ba ëllëg dama fa ànd ak Serigne Mbawar fu mu jëmut jëmuma foofu lu mu bëgg laa bëgg koo def xaritam mooy sama xarit ku ma dëngoon rek daa fekk dangaa jublu Serigne Cheikh mboor Mbor waaye man ku jublu Serigne Cheikh Fall Mbor mënoo maa def lu ma naqari ndax Serigne Cheikh Fall Mbor lay dund. ki ko bëgg nag moom dama ko yëngale wut ak kenn moo tax tant tey tant moom damay sant di tëdd di ko sant di duju di ko sant di dox di ko sant di sant tànk sama njabootam fu toll ñuy yeesal sunu njébbal ci moom. lu nu am jox ko lu nu xam wax ko demuñu fenn wutiwuñu xarit fenn mooy sunu xarit mooy sunu ndey mooy sunu lépp. ma di ko ci sant bu baax a baax nag cant gi nag dama ko muñ ba mënatuma ko muñ ma di ko feeña rek waaye man bu may tëdd damay sant bu may duju damay sant aw kenn ku dul moom itam ànduma kenn ku dul sama xol bi moom Serigne Cheikh Fall mbooru ci ne looloo tax mu di ko biral nit ñi bëgg ko ma ci jàppale dama ko sant ma tuut ci nag sant gi rek ma bëgg ko ma ci jàppale loolooy cant gi. Euh, bi nga ko dalee def ak léegi ñaata at la. moo ko dalee def ak léegi de léegi mu jege fukki at moom lee mu jege ko. li tax ma di ko defit muy man damay ku xeebu ci yoon wi doonuma dara ci yoon mi di nit ku ku woyof Serigne Cheikh Fall Mbaor teg ma fu ne ndax kum am ku baax boole na ma ak moom taalibeem bu mu xam boole na ko man loolu nag ma di ko ci sant bu baax li ma koy liggéeyal itam nag maa ko fas téenal sama bopp Serigne Cheikh Fall Mbaor mosuma yebal ci waañ mosuma yebal ci ndogu xaj na sax ndogu yi nii may def di ànd ak samay doom am na ñum jaaxal am na ñoo xam ne dama leen romb ñu ne mag muy ànd ak gone waaye damaa dégg Serigne Cheikh Fall Mbaor ne at mi yoon wi xamuti at dox la xam comme nag nee dox la xam man damay dox ba ba may faatu di ko ànd ak samay sët nag damay romb nit sax mu ne mag mu toll nii ànd ak i ay sëtam di waaye man feek faatu bu Serigne Cheikh Fall Mbaor yénoo ndogu rek damay ànd moom di dem di jiite gone yi loolu laa dund moom laa yëg ci sama yaram moo tax ma di ko def ndax man Serigne bu dundee tey ba ëllëg Serigne la dafa amoon ay jëmmi jamono docteur yi xamal na ma dangaa war a faatu ma jooy ñu wax ko ko booba ma ngi ci xaritam bi di Serigne Abdoulaat keroog fa lañ ko bada biy fekk bada biy sama seere ma dem mu ñëw mu boole maag waajuram wu tedd ba di soxna Afsatu Jam yabal ma ci Serigne Abdoulaat jox ma leetar bu mag ma àgg ci Serigne Abdoulaat fekk fa Seex Gube ñu ne ko kii Serigne Cheikh Fall Mbow ko yabal mu daal ni bërit ñu ne ko kii kat dañ ko xamal ne ko nee docteur yi ne dafa war a faatu Serigne Abdoulaat dañuy wax rek loolu de nee ko dañuy wax rek dugg ci biir bind ab téere jox ma ne ko boo demee neen Cheikh Fall ne ko fii mu jëm bu mu ragal dara kii day dund kon man lu ma dundati dama ko war a ñaqal Serigne Cheikh Fall Mbor ndax bu du woon ak moom ba nëgë ni faat naa bu yàgg kon sama tey sama ëllëg lépp dama ko war di sonnal Serigne Cheikh Fall Mbor looloo waral cant gi waaw. Euh, léegi jërëjëf soxna Fama euh, léegi ci waañ wi yéen nan ngeen ci duggee noonu togg yeeg yooyu ban coono ak lan ngeen ci kii ak ngeen di kii ak waaw waañ wi moom danoo fekkoon Serigne Aliou Fall Mbawar am nu sell num na ko doon def loo nu roy ca loola fekk fi Serigne Aliou Fall Mbawar loolu nu am lu jàngat ci moom am lu jël ci moom nu du ko doxal nag ndax Serigne Aliou mboor Mbawar moom waañam bala nga cey dugg dangay jàpp loola nag sëriñ Cheikh Fall Mbawar di ko dundal ndox mi ni togge bëggul ko ko as ndax nee na doomi Serigne Touba yi la koy yët dangay ngay wut pot tànk waaye doo as ndox mi ku kubéeru ci nanguwul jigéen ju ko ubbee siram loolee nag la ñuy dund sëriñ bi sant na ko ñu di ko def moo tax ndogu yi nun luñ ci def doyut sëriñ beet loolu la ñu jàngal ci lañ ne daal ci loolu la nekk. da di togg de da ngeen tudd ñam ak yooyu da ngeen tudd. déedéet man de mën na maa waat ne ndogu yi musagu maa xam lu mu saf kon ni ma ci mel ne la saay morom mel bañ ngeen ko bay sëñ Tuubaa nu ci dimbali waaye kenn koy koy mos xorom amut waaw kër gi yëpp. kon ko ngeen koy yóbbu ah kon kay yenn saa ngeen yóbbu xorom su weex xanaa <laughs> wala su manqué ñaar yooyu da baaxut ci togg xorom su weex koy xam xam naa bis bu weexee xorom de ñun weex na xorom rek <laughs> ñoom kay duñ ci daal ginnaaw dañ leen di indil rek ku ñu indil kay du wax weex na du wax a moom loolu de la duñ xam nu mu saf de wax dëgg yàlla ndax loolu lañ ñu yaroy woon waa kay kon ñu ngi lay sant bu baax baax soxna si di sant lan ngay wax ci tëli bi nag mu ngeen yóbbu gannaaw yow yaay yóbbu ndog yi yow yow yow moom xam nga yoon wi moom am na ñoo yoon wi waaye xam nga li nga ci jànkonteel maa déggoon Serigne Cheikh Fall Mbawor ne bi fi bi Cheikh Ibrahima dëkk bi ñetti dënd fi njëkkoon muy dënd Serigne Bamba dënd gaynde gi dënd Cheikh kon nu defe ne tëli bi bu ñuy dem nit ñi war nañoo man am dalug may nu tuuti nu jàll bu nu nit ñi mayut ñu léeg-léeg tase ak dof boo xam ne dañ koy bàyyi nga xam ne kii daa dof waaye du jikkoom nu bàyyi ko fexee nun jàll suñu liggéey rek ndax bëgguñu ko nu yàqal suñu liggéey ndax nun dañoo am sag ci yoon wi ndax nun tase na nag suñu blaat mu wàcc nu tase ak sëñ Saali mu wàcc kon keneen ku wàcc du nu jaaxal dañu xam ne lii mooy sa jikko dañ laa yorul rek waaye ñañ yaroon dañu daan jox cër noonu ngay waxee man noon nga leen di wax ñi ci tëli bi dof nga leen di wax ginnaaw ginnaaw doomi sëñ Tuubaa yi dañu daan warmaal ku nu nangu wuta warmaal kay sam xelamel noonu rek Eh, kii yanu bool bu mag wit sëñ Tafa moom sa lan la. sëñ Moustapha da yàlla dogal ne moom laa njëkk a gis ci kër Cheikh Rafal Bant bu góor li ma li may taxal ma di ci ci royukaay laa tam li ma ko jur taxut ndax moom dund dara lu sëriñ Cheikh Fall moom rek la dund dund leneen waaw. ak i magam ak i rakkam nag ndax moom dafa wax ne leerug sëriñ seex Fall Mbaor li ko tàmbalee ci maay ba ci sëñ Mahmadan mi dem caat. ñooy sëriñam kon loolu la dund moom. kon soxna si ñu lay sant di la ñaanal bu baax a baax li ngay wut ci kër gi nga am ko yaakaar yow moom wax dëgg yàlla jàmbaar nga ñëpp xam nañ la ci waar wi. yàlla na yàlla àggale sa liggéey te nangul la ko te dara bañ cee yàqu ci barkeb sëñ Tuubaa te nga yàgg ak sëñ Cheikh Fall Mbawar mi. waaw ah, xam nga kër gi li tax man may war di doon góorgóorlu dama fay fekkul sama nawle ndax damaa ñëw fekk fi yaa Njaaye muy doomi sëñ bokk ak sëñ Cheikh Fall Mbaor baay xam nga ko kon du sama nawle sama sëriñ la soxna Njaxate Cheikh Abdoulaat jur ko mu ñëwaat fi ma dib taalibe looloo tax man bi ma ñëwee fekkuma fi sama nawle sama taalibe la ma loo tax ma ànd ak Baye Fall yi ma war a nekk seen njiit waaw di leen sant nag bu baax nag waaw di leen sant nag bu baax di leen ñaan tam fan wu gudd ànd ak wér sëriñ Cheikh Fall Mbaor tam yàlla sagal na ko nag ndax jenn doomam ju fekk ci loo koy tere amut waaw kon noo ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant t yi ñëpp sëñ Cheikh Fall Mbaor daal royukaay la kon jërëjëf Fall di ko ñaan fan wu gudd nag wér. soxna Fama di def cant séeréer sëñ Cheikh Mbaor loo ji wax loolu moom. ah waaw da koo sañ rek di ndax ab taalibe la te nangu na ndigal mi ngi doon ab taalibe doom yi ni bi yi def la ñuy def dañuy laxasaayu di yenu di joxe addi te moom moom da koy def góor ñi ak jigéen ñi ñëpp joxe addi di yenu di laxas koo ci dajal ci mbedd doo xam ne maa ko jur moom moom boo dajal moom doo doo defe ne ci kër gi la bokk postier boobe mu jàpp nag ci la nu ko jàppale bu sañ naa sant kon nee nag la nga yëg ci sa boppal la tax di sant ka ngay sant ah. waaw moom mooy jiite ndog yi damay gis muy jiitu nii di suuf lee di def nii di kii. léegi moom gisuma ko ci waaye mooy jiitu mooy jiite togg yi fii bu ñu mooy jiite ci baate ba ah. te sëñ ba Moussa Adama sëñ Saliou da ko ciy jëlloo ndab yu mu koy fatloo ji ca biir ca la ko tàmbale ak ko naan nañ ko séddale def ko nang biñ ñëwee fii ñii soog a toog ñu ci ne dañuy laaj nan ndox ndox yi daan doxe xam nga ñoom doxagut fi ñoom li cëpp doxin wa waaye noonu dañ leen di jébal ne leen nu ngeen santaane nu wii ci rek waaw nañ ko sant nag ca lay wi jigéen di yàgg naa togg bu yëkkati baati moom loolu bu la amulay sant kon jaaxalee fii eh, man surga laa surga laa kër <laughs> ka nga ka kay tax ka nga ki tax nga bëgg a jàdd loo ndab yi kay ne na nga xaru bi si yenn ci ko ko <laughs> na war na fi ñëw bis ma jox ko ndogu gannaaw jaral na lool nañu waaw baax na kon dinaa ko <laughs> mbokk yi lii mooy jataay bi tey ñoo santoon jeg soxna Fama muy def tey ji di sant Cheikh Fall Mbawor fii ci fii fii ñu xayma woon jàkka ji ci mbaar mi foofu la koy defee foofu la ñuy defe cant gi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baal àq ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah param to i lamb to i wey bati agego tawai kaɗo waɗa way mustawa amud la jamba way